sama doom sama sama xarit sama lépp muy papa di ko ñaanal yàlla may ko ndam xam naa ne tey géejawaay moo xewle tey géejawaay moo xewle ki tëgg làmb ji géejawaay la dëkk bëgg goxam tëgg xale yi géejawaay yëpp tubaarikàlla macha allah suñu nee guy gi grand champion borom sempi borom géejawaay borom canaba di ko yàlla may ko ndam lu sedd guyu gàkko de tamit di ko ñaanal ndam yàlla may ko ndam lu sedd at ndigal ah papa booy jinne di ko ñaan suma doom suma rak di ko ñaanal xale yi ñoom ñëpp yàlla may na at bu Siteu di ko jaale magam bi gaañu bu Siteu di ko jaale benn magam boo gaañu ca Espagne maa ngi koy jaale baax bu Siteu di ko ñaanal tam yàlla may ko ndam at at bébé ama tamit di ko ñaanal yàlla may ko ndam tey daal affaire bi daal géejawaay la yàlla na nu yàlla suturaal te mosuñu cat at làmmeñ. mais Lirou dañu gis sa implication ci géejawaay. waaw mais loolu noonu lu ko waral. waaw c'est normal ñii samay rakk lan ñii samay doom lan ñii samay jarbaat lan comprendre ba pare ñu jox ma li ma mooma ah. mu yëg ma at fonk ma jox ma sama cër kon nag nii rek laa mën a taxawee di leen ñaanal ku ci am bis mu mel ni maa am bisan ah. ndax ku ci daan ma am ndam comprendre nga su bànneex ñëwee ma am bànneex bi ñoom den ci am waaye man tamit dinaa ci am comprendre nga yàlla tere su leen amee tamit ah sama xol du neex sama xol du neex voilà kon nag yàlla nu yàlla suturaal tey yàlla may ñu ndam Guédiawaye ci kaw ci kanam. Ah, man maay asu jabar mama mama bi nekkoon si écrit waalo bi maa n maa nekk waaw. di ñaanal sama doom ji rek yal na ko yàlla may ndam yal na ko yàlla may ndam si barke Seydina Muhammad waaw di ñaanal nag yal na ko yàlla lafal cat parce que li koy daan ni cat dong la yal na ko yàlla lafal cat li koy ndey mag barke baayam na ko wol incha allah yal na ko yàlla wol si barke Seydina Muhammad ñun ñun dañoo dañoo xam papa si bëre waaw mais tey dañoo ñëw si koñam gis ne koñ bi ñëpp a génn billaahi papa nan la dëkkat yéen papa jàmm ak salaam am na respect si doomu aadama bëgg na ay xale ay xale fu mu fu ko fekk mën na ko fa yendal yaa ngi dégg respecté na ay ndeyam respecté na ay baayam respecté na waa koñ waa koñ ñëpp la bëgg kon boog papa tey jii dañ koy ñaanal rek yàlla mawlaana rabba rabbu sawawaati wal ardi yàlla na ko yàlla may ndam si barke Seydina Muhammad gis nga man sax daanaka li may dem kër mbër bëriwul li may dem kër mbër dañ koy mais papa dafa nekk suma waaye ñu fowandoo mu daan bëri mbapat man maa ko daan wat ba pare mu doog a bëri kon xam nga kooku yàgg naa moom su ma ñëwee fii tey war na ma ma koy ñaanal bis bi nag yàlla na ko yàlla defal ndam lu rëy lu set wicc du kaaw ci barki Seydil Hadji Malick jàmbaar ji ndax sama waay la te dëkkin bu rafet la dëkkoon ñun fii amul problème papa lu waaye xew la da jàpp dugal si loxoom dugal si dooleem ba pare boole la ak ay nit ñu jàppale la kon kooku kon bu xewlee ñun ñëpp dañoo war a bàyyi suñu yitte ñëw waaw. yow tey nan nga gisee combat bi nan nga gisee noonu la war a bëree. wala waaw. papa instant amul lu mu war a bëree de bu arbitre ne prip na dem jël lu mu soxla jóge foofu combat bi gaaw daal. Tapha Gueye 2 bu taxawee Papa dóor ko mu daanu. ngeen loolu. bu taxawee Papa dóor mu daanu bu dee taxaw na laa la wax de Papa dóor ko mu daanu lu leer laa la wax. yaay booy ñu ngi lay fekk si ñaan yu metti ba du sa mbër bi ngay ñaanal. wallaahi. billaay moom la. billaay moom laay ñaanal. yàlla xam na ko moom la ñaanal it te rasulullah seede na ci sama xol bi laa ko tibb ndax duma ko taay mukk ndax xale bi wonu ma lu tax may taay di ko ñaanal billaahi maa ngi koy ñaanal maa ngi koy ñaanal yàlla may ko mu sedd guy xale bi maa ngi koy ñaanal lii nga xam ne daf ko bëgg ci xolam yal na ko yàlla may tay ndam yal na ko yàlla may ndam ci darajay Seydina Muhammad xale bi koñ bi yëpp ko yéene ndam mi dëkk bi yëpp sax laay wax ndax bu amee combat gis ngeen fii ni mel te xale bi dafa yaru dafa baax tamit neex naa bëgg wallahi maa ngi koy ñaanal te amul dara loo xamante ne hasard la yaru na tey na maadu na bu bëri kees bu la rombee day sëgg su ko defee nga yaakaar ne amul it te fekk yar bi moo ko doole dama koy ñaanal yàlla daal na am ndam bu seddu guyi Ah, waaw puusal yooyu wala boog. mais Baye tur bi naka la. Youssou. bilaa walaay ah. lii yëpp si bu ndaw laa ko tuddee. Ah. yaa ma gën a xam man tey loo gis si ah, moom lamb moom moom moom lamb moom barke Seydina Mouhamed ñoo moom dañuy yegg daan si fulla fayda heure si fulla ak fayda ñëwaat si fulla fayda ambiance si fulla fayda lamb ji ñoo ko moom barki Seydina Mohamed kii mooy sama tooma ñoo bokk ikiri waalo barki Seydina Mohamed kii laa la wax man maa ko bëggal sama bopp billaay wallaay wataalaay lu ma ko wax tamit mu def ko barki Seydina Mohamed lamb ji nag ñoo ko moom barki Seydina Mohamed lan ngay digal sa dafa war a xeex dafa war a taxaw xaar bëri wala déedéet bu yeggee bu rek dañoo def fulaak fayda rek ndax kooku tey jii boo ñëwee rek mee ko rek da lay daan wante nag boo ñëwee rek na wan ni ko ni man maa la gën a soxla làmb ji rek ay jaxasoo. waa sant yàlla rek moo ko wane rek encore affaire moom dippam ba pare lañ ko topp ba tey ñu moom du bëre daanu quoi ñu nag moom dañuy ànd rek di ànd rek ba lu yàlla fu ñu yàlla yemale rek yemale foofu lépp si yàlla lañ koy bàyyi tey moom ñoo koy ñaanal yàlla mu am ndam quoi ndax ku ne xam na lii dafa métti heure boo demee nga dem combat boo gën a am yaakaar boo demee perte loolu dafa metti quoi tey moom ñu ngi ñaan yàlla yonent bi rek yàlla suturaal ñu yàlla may ko ndam. mais yow nga fa ne gars yi làmmiñ bi làmmiñ bi toppul papa lu tax lu tax defet yi nii yëpp est-ce du làmmiñ bi ñuy wax si moom coow coow gu nekk si moom moo bëri moo tax wala. du làmmiñ yàlla mooy dogal rek fii moom yàlla ko neexoon day yem fii tey yàlla mooy mooy dogal quoi man moom loolu rek laa gis yàlla rek moo tax mooy daanu quoi. yow loo koy conseillé waaw. kon ko grand frère na ko jox cër quoi bu ñuy làmb ji bañ a topp ambiance bañ a topp dara nexe fexe ba dugg si géew bi respecté ko jàppante ak moom fexe ba naxante ak moom jàpp ko daan ko kii boo naxantewul ak moom doo ko mën a daan quoi ku ne xam ne combat yu mu génn yëpp gis na nu mu def Siteu da kii mu tudd buu Siteu ak Laurent yëpp da leen a nax dafa bett ñun ñi quoi papa nag tey dafa dafa laaj mu teey quoi dafa laaj tey mu teey quoi. ñëw tey gisoo papa jàkkaarloot waa ji xeexat moom dox si kawam wala yooyu noonu da nga bëgg papa na xaar. kii grand frère amul xeex boo ko dóoree da nga koy yàqal ak famam ak njabootam da nga koy naxare ba jàpp ko ba mu dëgër nga daan ko nga ba nga mbapat ak moom man loolu laa gis quoi. Ndiago sëñ Fallou. yaay maaji maaji. loo wax si combat bi tey. waaw moom. waaw mu dalee bëri ba léegi nag ma damay ñëw ko ñoom mooy mosuma lekk si ceebam mais tey lekk naa si ceeb bi tey ndam la am man Ndiago sëñ Fallou maa ngi wax ak yow de borom gunaas mais bu li jàllee après nga ñëw ñu waxtaan mais borom baax la quoi waaw waaw mooy loolu mais yàlla na ko yàlla may ndam maaji maaji waaw tey dara rek. Ah. waaw dara rek Moussa Ba xel mag lay jaay mais da dara rek sëñ Fall waaw. fët fët mu jàpp fooxas joxos mais lu leer laa la ne maa ngi doog lekk ceeb mais tey da ngay indi de mooy sëñ Fallou. yow est-ce que du ceeb bi nga lekk tey moo nar a indi ndam. moo nar a indi ndam li mais xam nga dama kaa koon mais sama waay la mais xam nga ay science. ndax luy ñoo di la quoi te ñun xam nga ba ñu woo Baye Fall moo la woon non non ñu ñu amul ñun fii lañ dëkk fi lañ tiitaroo ñu génnee ñu saa dañuy mere mais xam nga waaw yàlla na may dem quoi Mar Mar noo gisee sa copain waaw waaw tey amul xalaat de laa Ah, yow instant wóolu nga sa mbër daal. bon lii loolu yal yàlla suturaal may ñu ndam rek. Ah. waaw nee leen diis ba nii rek ñëw leen nii ma une minute voilà. mais tey loo conseillé sa non tey kenn du ko conseillé sa waay tey kenn du ko conseillé xam na lépp. Hmm. yal na ko yàlla suturaal may ko boppam may ko xelam rek. xanaa ne xelam bu nekkee ci moom boppam ne ci moom yàlla xam na ne mu def différence ci kàttanu yàlla yal na ko yàlla suturaal may ko ndam. mais dañu gis ne moom instant dafa nekkoon si ay tolof tolof temps yi nii nii par rapport ay combat yu mu yu mais dañu gis ba léegi gars yi ñu ngi si kawam mais. waaw loolu moo lay loolu moo lay wan ne laxatu kese naxatu bëy te bu fekkoon ne cuune la wala nekkul wala gëmul boppam kon li topp ci ginnaawam bi topp ci ginnaawam mais à chaque fois da ngay gis bu amee combat nit ñi ngi am espoir ne tey day baax kon loolu moo lay wan ne moom njàmbaar la garmi la te li muy def mën na ko xëy na yàlla mooy ñëw ak ay sansam ay dogalam te loolu ci dund doomu aadama la bokk ñu ngi ñaan yàlla naqar yeeg defet yeeg yëpp yem fa si kàttanu yàlla victoire yi commencé tey waaw di continuer di neex ci bak sëñ Fallou ba taxul ñuy ànd quoi waaw ah, ñoom papa ñoom mag suñu bëggee bëri ñun moom moo tax mais laa moom trop trop bu ñëwee ñëw de mais ñu sax ñu si ginnaaw duñ bàyyi waaw sang la quoi deret la ñun ay doomu gunaas lañ ñun ñëpp ñett ñëpp kenn mënul dem bàyyi sa morom bu dul làmb dañuy ànd làmb boolewuñu quoi même koñam loolu lañ ko seedal à part làmb day def si koñam day def si ay. waaw si mooy yoon. billaahi waaw borom baax la borom xol bu rafet la jàmbaar la. billaahi xam nga làmb moo waxul dëgg rek. mais waaye bu ma fekk muy bëri ay ñoom billaahi làmb moo muy bëri bis bu doy waar. di bëri koo xam ne danger la ci làmb ci song est-ce que papa sóoraale na loolu. waaw man bëri naa ak moom wax naa ko lu muy muy bëri moom waaw. dañ koy wax la si bàyyi xel la bay dem ba si géew itam daf leneen mais ñun duñ ko wax su ko toppee rek dina ko daan jël bu yom mu tey rek mu tey rek tey loxo góos bi nga taalal ko ba nga yëkkati duraat bi te loolu moo koy daan bañ ko dóor jot jàpp ko bëri moom. xam nga ko a yóbbu tey ci xam naa xam naa ko ñun day am allah. xam nañ ko bu baax a baax combat suñu combat la. waaw dëgg la ñu ngi tëdd feebar mais bàyyiwuñ ko benn yoon. ñu ngi koy soutenir ñu ngi koy taxawu xam nga comme comme mag ak rakam parce que suñu frère la suñu mag la suñu bëggee laam ñoom ñoo tax moom macha waaw. colomique bi bari bi feebar bi gars yi nan man defoon naa ne sax yaa ngi hôpital gisoo ma la woon. waaw ni ma wul déggee affaire yi. waaw loolu su ma si wax dinaa wax. su ma si waree wax dinaa si wax waaw.